ki nga xam ni moom moo di père Marcel Sarr moom tam moo nekk fi nga xam ni mooy église bi ci Parcelles Assainies tey nag boo gisee ñu ñëw fi dañoo fa yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum Covid 19 muy coronavirus en même temps ñoom seen ngalax yi ñu daan def ak seen activité yu bëri parce xam na ne affaire bi dafa tombé ak seen koor ba tax na ñu bëgg waxtaan ak moom naka la ñu dundee li nga xam ne moo di bi père Marcel maa ngi lay nuyu. Euh, xamante ni ñoom ñi nga àndal. ndax may ñu possibilité ñu mun a exprimer wu wax suñu xalaat parce que euh, dafa di li nga xamante ne dafa yital dëkk bi parce que dafa doon maladie bi nga xamante ne euh, vraiment elle a de souffrance maa ngi lay nuyu. ñu gis ni tam maladie bi toll na foo xamante ne nii laal na côté bu nekk particulièrement yéen ñi nga xam ne yéen seen koor seen commencement koor dafa fekkante woon ak feebar bi dugg fii ci Sénégal. waaw euh, laaj bi nga laaj laaj bu am solo la. ndaxte dafa tombé waaw dafa tombé vraiment ci jamono bi nga xamante ne euh, euh, temps bu am importance la ci suñu dundu chrétien voilà temps de prière la et de pénitence mi nga xamante ne am na chrétiens yu bëri yi nga xamante ne koor bi bu jotee rek ñu mun a delloo seen xel fa yàlla waaw donc mais gis nga euh, lu yàlla dogal voilà dafa tombé effectivement te loolu mu doon li nga xamante ne ñëpp a ngi laaj naka la ñu mën a dundee koor bi ci jamono ji aha mais nag moom jël nañ suñu matuwaay ba wax ak euh, fidèles yi comme ça ñu mën a xam ne ku nekk rek fi nga ne mun nga faa fekk yàlla mën nga ñaan sa borom waa parce que dafa di temps bi nga xamante ne faw ñu suivre directive yi nga xamante ne moom la suñu autorité yi yeble jëlee ko ci njiitu réew mi président Macky Sall voilà donc pour que maladie bi euh, mën a bañ a propagé wu euh, dëgg dëgg la faj am na solo mais euh, ba ñu am feebar bi aussi moo gën voilà looloo tax vraiment ñu accepter loolu te te def suñu kamtulaay kàttan ndax ñu ñu ñu mun koo ñu mun koo combattre. gis mhm. nañu tamit église bi tout le temps da daan def ay prières mais moment bi ñun bi ñu fi ñëwee nii gis nañ que ni prières yi dafa taxaw te ni mu daan amee ay nit gis nañ ni tamit bariwul ay nit noonu. Mhm. waa loolu loolu euh, wax nga dëgg. Ehm, dafa de ehm, temps bi nga xamante ne voilà fidèles yu bëri dañ doon ñëw euh, di di ñaan ci ci ci église bi surtout euh, carême bi bu demee ba ñuy dem ba ba jegeeñ si semaine sainte mais euh, ak situation bi fidèles yi comprendre nañ loolu loolu tax fu mu ne nii da ñëw ci jàng bi mais doo gis kenn voilà c'est très impressionnant parce que à l'heure waaw église da doon fees dell ak nit euh, te surtout ci ci Maria bi da doon fekk fii euh, ay chrétiens yu bëree bëri mais da ngay ñëw doo fi fekk kenn waa euh, te te xam nañ ne loolu lu metti la mais lépp rek pour xeex li nga xamante ne moom mooy feebar bi parce que feebar bi dafa li li nga xamante ne fu fu ay nit ñi bare da koy gën a yombal ndax ñu mun a propager wu voilà loolu tax ñoom aussi. d'accord nañ ci loolu comprendre nañ ko loo tax ñu ngi ñaan ci seen kër yi. Ah. ñu bëri dañ naan kooru chrétien dafa xaw a metti Sénégal ñi nga xam ne comprendre luñ yi naka la ñuy koore est-ce que mën ngeen ci expliquer tuuti. Hmm. Euh, koor moom dafa di li nga xamante ne moom lañu waroon dund sax ci ci saay su ne même bu nekkul koor aussi nit dafa war a delloo xelam ci yàlla te dafa war a def lépp ba ba dàqu bàkkaar parce que dafa di li nga xamante ne euh, baaxul ci suñu dund te te yàlla bëgg ko aussi waaw mu dee euh, euh, fan yi nga xamante ne dañoo war a ñaan yàlla gën koo ñaan maanaam gën a am ferveur ci suñu ñaan aussi un repas par jour la ñu wax waa un repas par jour la ñu wax mais nag loolu def ñu war a may seulement pour ñu mun a delloo suñu xel fa yàlla looloo tax fu ne nii eh, kenn mën na la koo forcer waa nit ki aussi day def selon euh, possibilité am parce que tey jii bu la wóoree ni man bu ma ko defee eh, dootuma mën a ñaan sax kon yow jarul nga koy def waa donc euh, dimension euh, humaine bi li ñuy gis waruñoo tere ñu gis li nga xamante ne moom mooy dimension spirituelle bi waaw lu am solo mooy delloo suñu xel fi fa yàlla donc nekkul rek bañ naan. te te bañ a bañ a naan pour bañ naan ou bien bañ a lekk pour bañ a lekk mais bañ a naan bañ a lekk pour pour pour pour mun a jàmm yàlla waa te ki nga xamante ne euh, dafa feebar aussi warut warut woor waa aussi ndaw yi nga xamante ne aussi màggaguñu waa waa waruñu woor donc dafa de li nga xamante ne kenn obligé la ko mais euh, vraiment ci ci ñëpp ñu ko mun dañ dañ ko war a def normalement. parce que daf lay may nga gë nga gën a jëbleel sa yàlla sa xol euh, sa sa xol fa yàlla ngeen koo ñaan ndax mu may ñu jàmm mu baal ñu suñu bàkkaar donc temps de pénitence la temps de prière la waaw. tamit vendredi samedi dimanche lu am am solo la ci yéen vendredi bi est mën nga ñu expliquer carrément. waaw hmm. euh, vendredi lu am solo la c'est surtout vendredi saint parce que boo gisee euh, vendredi saint. moom moo nekkoon euh, passion de Jésus waa foofu lañ ko rey euh, daaj ko ca croix ba waa euh, mu dee li nga xamante ne bésu dëy la bésu prière la waa mais bésu grâce la parce que ci loolu la ñu musalee ci suñu bàkkaar parce que comme nit dafa bàkkaar mais moom si boppam moom déjà mu ngi si biir donc mënut woon sauver boppam moom il nit ki nga xamante ne mosul am bàkkaar ki ki nga xamante ne bokku ci mun mun a ñëw ñaan ndax ñu mun ñu baal suñu bàkkaar parce que yàlla dafa baax te dafa bari yërmande mu sàkk mu sàkkuñu te ñu bàyyi ko fale di def lu ñu neex donc looloo tax Yeesu ñëw pour baal ñu suñu bàkkaar dafa li bés bi nga xamante ne boo ko xalaatee bés bés bés bu rëy la parce que nit ki nga xamante ne euh, deful dara lu bon dafa ñëw pour sooy nit ñi ñun ñu koy rey kon loolu boo ko xalaatee rek dafa di l'innocent des innocents parce que ku nekk ci ñun rek c'est vrai am na fi nga nekk innocent mais am nga fi nga nekk coupable toujours mais moom coupable fenn am musul am bàkkaar mais dafa ñëw rek pour def jànn pour faire le bien pour parler du bien et on le met la croix oui donc c'est pour cela quand il rencontre vraiment les chrétiens euh, c'est, vraiment un jour de deuil Mais c'est un jour de grâce parce qu'il y a la réalité spirituelle qui est derrière, nous, nous donne beaucoup de joie. Parce que c'est à cause de cela qu'on nous a pardonné de notre péché. Donc euh, le vendredi hier, euh, les fidèles l'ont vécu dans leur milieu de vie, wala à travers la connexion Internet aussi. Ça, parce que euh, ñun comme la l'abbé aussi ñoo ngi fi di ñaan te may nañ leen ba ñu mun a def en direct ñu mun a gis ñun lu ñuy def fii parce que comme ñun fii la dëkk waaw fii la ñu wu mun nañ ñaan ci biir kii bi mais ñoom mënuñu mënuñoon ñëw <laughs> parce que ñun fii la dëkk voilà nit ku nekk rek fi nga nekk foofu nga mun a ñaanee waa donc euh, mais euh, à travers médias yi euh, ñu bëri ci mun na ils ont pu prier en connexion en union avec ñun waa parce que vraiment le Seigneur sait ce que nous vivons aussi la réalité que nous vivons Voilà, euh, c'est un jour que euh, certains le vivent euh, voilà, avec une certaine tristesse, mais il faut le comprendre parce que mënuñu ko comprendre nit ki ñëw pour def li nga xamante ne moom moo baax si yéen waa ngeen koy rey waaw mais après tout cela on cherche voilà à expliquer la théologie qu'il y a derrière voilà parce que c'est celui qui est mort qui sera ressuscité donc et là euh, chaque fidèle est appelé à mourir quelque part voilà nit ku nekk rek. am na fi nga xamante ne da nga faa war a dee parce que mu di ci mbirum jalousie ci mbirum envie ci mbirum xalaat lu bon waa ñun nit ku ne fa am fi nga xamante ne euh, di nga di nga di war a tuub sa bàkkaar voilà donc te ñun bu ñu tuubee suñu bàkkaar dee ak Christ bi dinañ dekki donc pour ñu mun a dekki nag yaa war a xool ci sa xool bi fi nga xamante ne vraiment baaxul nga nga mun a def lépp pour bàyyi ko. te vendredi saint dafa di bés bi nga xamante ne vraiment moom lañ ko jagleel. ku ko wax seen koor wax ngalax ñu gis ni ren ngalax du am léegi lan ngay wax sa mbokk jullit yi nga xamante ne nii euh, say xarit lañ boo mësaan toll ci sa mois boo xam ne da ngay def ngalax da nga leen di invité tax ñoom dañoo bëgg ngalax. vraiment <laughs> waaw euh, dëgg dëgg nga wax. parce que vraiment euh, fii Sénégal yàlla may nañu bu ñu am ay relations yu rafet avec les musulmans. man mii j'ai toujours eu des amis musulmans et chrétiens ensemble voilà te bésu tabaski bu jotee dama doon dem ñu nekk di di voilà di lekk xar bi voilà chez chez c'est un un un ami par exemple Saliou voilà donc euh, et mm, ñun bésu ngalax bu jotoon moom mu ñëw suñu kër ak ñeneen xarit aussi. ñu nekk ensemble voilà donc dafa metti ci ñun ñu ci nekk ci situation bi nga xamante ne mënuñoo def ngalax te xam naa ne loolu la chrétien yëpp di dund parce que dafa di bés pour retrouver avec nos musulmans wala vraiment mais ñoom aussi jëm euh, na comprendre nañ loolu te te nos amis musulmans aussi comprennent parfaitement la chose voilà donc euh, ñoo ñoo ngi tooñ sax ci média yi ne ana ngalax bi <laughs> mais euh, lépp rek pour bugg a xeex euh, euh, waa waa coronavirus bi nga xamante ne parce que autorité yi bu ñuy def seen wàll ku nekk ci nun rek dafa dafa war a def wàllam parce que buñ ko xeexee ensemble boobu lañ ko mun a mun lañ ko mun a gagné te te par exemple dégg naa ministre bi sax muy wax ne voilà ñoom c'est-à-dire xeex bu gën a am solo mooy xeexu population yi parce que ñoom ñoo mun a tax ba affaire bi du law. voilà donc loolu nag ku dégg loolu waaw wax dëgg yàlla war nga def lépp mun a bàyyi lépp ngir rek xeex feebar bi nga xamante ne moom mooy coronavirus. supermarché ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di lay remercier ci nangul gi nga nangu interview pour expliquer sa mbokk musulman yi ak sa mbokk chrétien pour ñu comprendre li tax ren seen ngalax yi du am. maa ngi leen di gërëm aussi yéen parce que ngeen ñi may possibilité. ñu mun a partager euh, li nga xamante ne moom la ñuy dund li ngeen di def nii lu am solo la vraiment daaw def ngeen ko ren aussi defaat ngeen ko euh, xanaa rek di leen di ñaanal yàlla ñaanal Sénégal yépp euh, yàlla ndax yàlla mi nga xamante ne melul ñu ñun moom dafa bari yirmande waaw mu mun a nangu suñu ñaan yi te te mun ñoo sauver ci ci ci feebar bi sauver àdduna si lépp parce que ku nekk fii ci àdduna bi rek xam na ne ñun amuñu kenn ku dul yàlla ak moyens yu nekk ci àdduna bi yëpp ñun ñoo ngi jaaxle kon moom rek la ñu am donc ñu ñu ngi koy ñaan euh, ci yërmandeem voilà mu mu mun ñoo may euh, xam-xam ak doole bi nga xamante ne dinañ mun a combattre lii te aussi euh, mu xaare aljana ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñoo fi jóge parce que ñu bëri gaañu nañu ci ci ci feebar bi wala ñi nga xamante ne aussi moo ngi ñoo ngi ci doomu jàngar bu mun leen may wérgu yaram ndax ñun ñëpp ñu mun a delloo suñu xel yi yëpp euh, mun a continuer di dund suñu dund chrétien voilà euh, te aussi Pâques bi nga xamante ne moom la ñuy dund euh, Yeesu mun a nangu suñu ñaan yi moom mi nga xamante ne dafa ñëw pour sauver àdduna si mun sauver ci ci bile feebar maa ngi leen di gërëm bu baax a baax.